di nuyu partout dans le monde rawatina Bargny diaspora bi ak képp koo xam ne yaa ngi doon ab Bargnois ne si Europe bi ak képp koy ab Sénégalais nekk si biir Europe bi ñu leen di ñaanal tukki métti na ñu leen ñaanal yàlla suturaal leen ba lépp fay liggéey ñu mën ko indi seen njaboot maa ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi si diaspora bi rek di daan sa doole te di Sénégalais ak képp koo xam ne yaa ngi si diaspora di jullit rek ñu lay ñaanal ñu siyaar ñëpp di bëgg ñëpp di masaw suma di leen maasaw xam naa dañ nañu ay coono man ñi topp sama gannaaw ñoo ma gën a sonn fuuf comprendre ñoo jël seen alal di si ñax seen lépp comprendre kon man aw ma sama samay fans man aw ma seen fay déggoo ma de man aw ma man samay fans man aw ma seen fay lu dul di leen ñaanal parce que ñooy jënd seen ticket ñooy jënd seen billet fii kenn mosuma fi may ay billet comprendre kenn mosuloo may billet no non kenn mosuma may billet benn nit daal moo mos ak li lay topp ci mbooloo yi déggoo ak nit mosuma may billet bu dul Mamadou Sy comprendre nga te kooku tëngeej la dëkk comprendre nga ñene billet cent mille billet lii billet trois mille mu ne ma dinaa jënd cent billet comprendre nga xam si biir ñi fii baa ko génnee sax ñoom gars yi tas man maa Tapha Gueye 2 maa ngi jënd trois millions ay billets jënd ko deux mille ñëw di ko jaayee su may fan sa mille francs pour pertaat mille francs jëlaat mille francs mille francs yi jëndkaat ko ay billets ba trois millions yi ji tak li may wax nii Sarrafay xam na li may wax bu baax combat boobu dama ko bëri si vide bi ma paree de desew ma dara ni day ñëw sax ma amel ka muy daw di ñëw ma nëbbu comprendre kon làmb dafa métti su may fan sa nag maa leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal leen a ne lépp lu koyen sa am ñoom la magu bar ñi tamit aw ma seen fay ak kilifa yi nekk fii man aw ma seen fay am maire yi xale yi billaay aw ma seen fay ñu gis ne combat bi xawoon na yàgg depuis daaw la woon wala daaw jéeg ba léegi mu taxaw ñu ñëw ba muy waa jib si covid bi ñëw ngeen toog di muñ di entraîné ba fi mu toll nii euh, li gars yi di wax rek loo bañul loo bañul mu yegg si bul ko jàppal bés daanaka bés bi ñëw na wàccaay li naka la deme waaw wàccaay bi métti rek métti rek mais sant yàlla xam nga yàlla moom lu mu la natoo rek moom mi la ko natoo dina la suturaal comprendre la yàlla mi ñu natoo làmb dinañ suturaal quoi waaj bi métti na mais tey bu ma gisul woon ku mel ni Ba wala gisuma ku mel ni Moussa Gueye wala gisuma ku mel ni Ibrahima sek comprendre nga ah ñi xam ne dañuy nekk si ginnaaw di jàpp te bëgguñu sa ñu tudd seen tuuf kon day meti comprendre nga di nuyu suma staff bu baax di nuyu ñi xam ne ñoo yor si wàllu musique bi yëpp aw ma seen fay li mu ma kii bàyyi kii ñoom ñëpp. mais la ma dugal ci double moteur ñu gis nga jógee ci ki nga xamante ne mooy Diène Kairé euh, euh, yàlla dogal ngeen match niil nga jóge fa dal ci double moteur la ma la dugal ci double moteur. waaw xam nga làmb mooy li Père Max wax rek dimanche bu la raw rek. yaa ngi perte comprendre nga combat la kon combat yi weesu parce que adversaire mënoo kaa jël bu pare di nga négliger mënul nekk combat bi bokk na si combat yi ma gën a fonk si combat yi comprendre adversaire la kon adversaire yi lu tax jël ko man dama rafetlu ay mbokk si làmb comprendre waaw dama rafetlu ay mbokk si làmb te dañu xaw a sori côté Dakar mais yàlla may nañu ba ñu marqué suñu empreinte comprendre parce que mbooloo mi topp suñu gannaaw toppul kon mbëri ñu tudd làmb te duñ tudd Quench loolu mënul nekk ñu tudd dëkk yi te duñ tudd Bargny loolu mënul nekk. ñu xamu woon ñi sax yaa tax ñu xam Bargny. waaw mais c'est normal damay ñaan yàlla déggoo lii ma la nii Sadio Mané def ba ñu xam Bambali noonu laay ñaan yàlla def ba ñu xam biir Bargny fii ba ñu xam Bargny. mais sa diggante ak double lan la laaj sa diggante ak double gis nañ ko mu nekk mbër moo xamante ne day jàpp ba mu bëri ba mu dëgër mu liggéey moom tamit buy Euh, waa plateau ñëppay topp ci ginnaawam sa digganteeg moom lan la waaj. waa mais sant yàlla moom na waaj rek comprendre nga moom si côté dama siy wax tuuti rek parce que li ma si waroon wax wax nañ ko si internet yi instant yi jëf-jëf yi des mooy Double Moteur lu ma koy ñaanal mooy mu am jàmm ma am jàmm ay fan saam am jàmm su may fan saam jàmm yàlla may ma ndam lu sedd guy si koom combat bi laa gën a fonk samay combat dina am xeex. waaw lu mu laaj rek ama làmb moom mooy làmb lañ wax comprendre nga làmb lañ wax moom daal lu mu indi incha allah dina ko. mais dafa mel ni xaw na yokk poids rek gis nga ko est-ce que. loolu day sant yàlla la poids bi mu yokk loolu sant yàlla laay wax comprendre du ma asi moom moom na dolliwaat sax laay wax. Hmm. waaw comprendre. mu doolee moo ma la lu mu metti métti métti ma marché bu sooy jàll. instant bi naka ngi sa état de forme bi sa état de forme kenn jàppale ci musique. <laughs> musique musique <laughs> loolu du si wax sax musique moom man. non ñaanu xale yi rek na ma téye. ñaanu xale yu ndaw yi barke Sëriñ Babacar. des fois doo yeewu yaram bi xaw a diis wala xaw a. barke Sëriñ Babacar chaque suba bu ma yeewoo damay gën a sawar man ñaanu xale yi barke Sëriñ Babacar man dama téye si làmb dégg la mag ñi de ñaanu xale yi kese kese man dama téye si làmb. lan ngay wax say supporters yi nga xamante ni dañuy xaar coins boo jógee ñu jóg duñ la bàyyi benn yoon nga wéet lan nga leen di wax. waaw mooy di leen sant rek di leen wax ne ñoom daa am rek lu ma leen di dénk mooy dañ na fan si coins ñoo gën a yaru si fan say mm-hmm. ma leen di dénk kon lii gars di def esat di buddi ay sées di di sànni ay sées maa leen di ñaan ñoom liñ leen xamee parce que dañ ñëw ba Bargny fii fal ma ambassadeur de la non violence ñu fal ma ko ba nii nii nii nii man lañ ko fal li ñu faloon boo ñaa ba nii raaya gaa ngi si man maa nga dul tiitaroo rek comprendre kon bu ñu falee ambassadeur non violence aw ma droit am supporter boo xam ne day day indi sax lu jege violence comprendre nga fan su coins dañu war a fekk kuy def violence ñu jëlee la si parce que ñun loolu la ñu xamee ñun bari ñi macha allah yàlla dimbali nañu ba yenn yi sax mooy loolu yàlla daal suturaal nañu bu baax dëkk bi fii booy yaru nañu xam nañu fi ñuy teg seen tànk te bu ñëwee stade si yar ak teggin la ñu ñëwee yàlla mooy ñu ñoom ñu ñibbi si yar ak teggin man daal li ma leen di dolli mooy seen yaram bu mu tàng tàng tàng ba kenn ni jël si ab sées loolu laa leen di ñaan ñoom su fans parce que ñoom man aw ma seen fay comprendre man ni ni ni ni may def ba ñu kontaan ñoom nañu def noonu man ba ma kontaan. parce que ñoom lu ñu bëgg rek man maa ngi si bu laajee su ma bakken bii ma joxe ko ngir ñoom dinaa ko joxe. te di nga ko joxe ci combat. waaw déggoo li ma la bu laajee su ma bakken bii ma joxe ko dinaa ko joxe ngir ñoom parce que bëgg dafa métti te ki la bëgg yow amoo ak fayam succès bi neex na trop coince coince coince foo romb mais ki nga xam ne boo xewlee mu bàyyi léppam bàyyi liggéeyam bàyyi léppam topp la jënd tisetam jënd tikeem yëpp topp sa ginnaaw kooku amoo ak fayam te xaalis bi yow yaa koy lekk comprendre au contraire tamit dañuy yëkkatiwaat seen xaalis si la jo kon man su may fan sa aw ma seen fay te su may fan man aw ma ay fan ay frère la am man samay fan sa kenn ku si ne mën naa jaar sa li ñuy bari bëri yëpp kenn ku ne mën naa jaar sa turam. comprendre man ay rakk laa am ay mag ay ndijaay comprendre man su may fan sa déggoo ma la ñëpp xam naa leen comprendre moo tax man dëkk bi fii tuuti ma fi du ma dox sa biir bari ñi bay xalaat parce que man xam naa suma ma fi ñu teg. xam naa dëkk bi fi ñu toll si man comprendre dëkk bi ñu ma dara man maa leen desal te incha allahu rabi yàlla dinañu may ndam bu seede guy. incha allah ah. euh, lan ngay wax Baba Diaw moom mi nga xamante ne xale la nekk gan ci làmb bi mooy combat maanaam bi mu dugg see ci làmb ba léegi bi mooy combat bi gën a mag bi mu tëgg lan ngay wax Baba Diaw ak lan nga koy wax mu waajee ko bis. waaw di nga mu préparer làmbaam te xam ne ñun ñu ngi si parce que réussir am mooy suñu réussir ñun réussir am mooy suñu réussir. te ñun moom man waxuma si beneen côté mbër mi de mais man laa wax si sama côté lépp lu ma fay dinaa ko dinaa ko delloowaat xaw ma nag si côté mbër ma le mais man Baba Diaw lépp lu ma fay dinaa ko double plus waaw xaw ma nag beneen mbër ma quoi comprendre man sama bopp laa xam waaw. boo amee kàddu nga sant gërëm. waaw sant waa Bargny rek sant suma staff sant suma encadrement sant mbokki Bargny sant magi Bargny yi xam ne dañ may ñaanal. comprendre nga ma sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla yàlla bàyyi leen suñu kanam sant fukki pencee ñaari te di leen woo comprendre di woo autorité yi bari ñi yëpp liw ma kii bàyyi kii parce que koo fi limul turam sope ñëw si moom naka diw day lim na ñëpp mais liw na limu ma ken autorité yi bari ñi yëpp maa ngi leen di woo amul kii amul kële muy cat ba cat booba ba génn ñoom ñëpp maa leen di woo di woo fukki pencee ñaari di woo képp kuy suma fan sa ak foo mën a ne di woo waa diaspora bi yëpp surtout bari ñi diaspora bari ñi nataal bari ñi teggin di woo bari ñu waay yi nga xam ne dañu nekk si diaspora bi di liggéey ma di ñaanal yaa seen liggéey am barke ba ñi amul kayit am kayit ba ñibbise si jàmm seen njaboot comme naan di woo pour tout daal moon di nga may suma doom day ba rëgay ñaaware père ñaaware ñoom xam nga mënul ñàkk parce que chaque instant ñu si YouTube bi di xool comprendre nga maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp bari seen fay te guddi guddi bari laa jëm guddi gur ji Bargny laa jëm sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp 100 pour 100 Coins nag man mënu ma leen fay. 100 pour 100 Coins ñoo mënu ma leen fay sant bi nag am na fu mu commencé mais amul fu mu yem waaw. rendez-vous bi kañ la. le 7 novembre di woo ñëpp. Bargny gis ngeen mbokk yi nii leen leen ko defalee ci Wassare Lamb di leen jox dig daje beneen yoon yeneen mbër jërë ngeen jëf.